wa ala alihi wa sahbihi alkiram ak ñoñam yëpp wa sahbihi ak ay sahabaam alkiram yi ñëwey baax amma baadu gannaaw loolu fa yasilu ñu ngi jokkale wala fa yasilu yegg alkitaabu téere bi ila ci loxoob aazu naas ki gën a tedd ci nit wa alaahum ki leen kawe makanatan bërëb indi ci man mune lettre bi mu ngi jëmele ci ki nga xamne mo gëna tedd ci nit ñi ci mom ak ci ki leen gëna kawe makan ci mom mahallul ulumi ki nga xamne ne bërëbu xam-xam la waccu wayu xam-xam la wala asrar ak ay mbot waladi sama dom wa ahdi ak ki sama kullëre cheikhu mu nekk sëriñ nag bi jamiil maraati bi ci mbooleem martaba yi Sidi Alioune Cissé taggee woon na Baye ne ko sëriñ la ci mbooleem martaba yi bayit mu ngi wax ne ki muy wax nii sëriñ la ci mbooleem martaba yi saahibul garaibi kii boroomi ay xarbaax bari na xarbaax yum def ci yàlla al azwaqi boroomay mos ci yàlla mooy borom xam-xam ci yàlla rek wala ajaayib kii boromi kaawteef man ka nga xam ne alhamoon laahu rushdahu yàlla def daf kaa wal njubam dafa judd rek nekk ku jub nekk ku baax moom jëmu ji may jox lettre bi fa jaala yàlla def himmuhu xitteem waxdahu yàlla kese mu defit xitteem yëpp bëgg-bëggam lépp yàlla kese la is ndax hëmmo xayruhu xittee kudut moom al axraadu mooy gaar-gaar yi ak poñet yi bàyyi nee ne ku kii muy wax soo xoolee xitteem rek mu ngi jëm ci mbiru adduna ak li nga xam ne mooy poñetu adduna wa taazuzu ak di màggal indal xalqi ci mbindeef yi duuna taazuzi wóolis muy màggal inda rabbil anaami borom mbindeef mu ne ku kii muy wax boo ko xoolee day màggal mbindeef te du màggal borom mindee fi kooku mooy kan kooku mooy alxaaji Mouhamad Zeynab mooy alxaaji Mouhamad Zeynab mi nga xam ne mag na mag la ci baay te magee na baay euh, fukki at asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baay nuyu na ko nuyub jullit te mooy nuyub lislaam ki doon wax ci kaw yëpp di ko tagg-tagg yu màgg yooyu mooy alxaaji Mouhamad Zeynab yàlla di continuer di wéy al ilaa moo di xamal wusuuli kitaabika sa téere bi yegsi na ci man bàyyi nee na ko sa lettre bi nga bind muy lettre bu rafet bu baax yegsi na ci man wa bashirtu bég lool bi bur i illatika sa feebar bi nga xam ne wér na allati feebar bi nga xam ne euh, euh, adanat nii feebar loona mu ne ko feebar bi nga xam ne danga kaa feebar tam wér kontaan naa ci waaye feebar la boo xam ne man sonal na ma lool walhamdulilah ñu ngi sant ci yàlla wa shukuru lahu ñu ngi koy sant yi sant ak maanaam làmmiñ wa asa amoon na amaan na an laa yakuuna du nekk min tuuli maradika sa feebar bu yàgg bi taatilu di yuqil rek li baytillaahi jëm ci néegab yàlla bi alazimi yàlla mi aji màgg fa jaalat def na euh, aleyka ci yow وظيفة وصفة حمد سنت يالا وشكر أك سنت بأني آه، تجمع بيم بولي جميع المريدين بولم طالب يغوري والمريدات أك طالب يجيني وأجل مدال مغل قلوبهم سنقل وبلقهم نجوتال لين عني كمان أني نكمان دال أذكرهم سنتنا لين أذكرهم الله مانلين سنت رنجر يالا wala ahdu ak kullëre bi nga xam ne bayna naa mu ngi sunu diggante fi taameeri ci dundal baytihi néegam yàlla bi bil waajibaati ci yi nga xam ne wareef la te mooy julli juróom fi saaril awqaati ci mboolem waxtu yi bàyyi mu ne ko sa feebar bi ak lu muy yàgg-yàgg terewut maanaam ñu ngi màggal rek néegam yàlla bi di ca dem di wasifa ak joxe fa li nga xam ne mooy wareefi bàyyi na ñu ngi sant laa yàlla ci loolu waaye nag di ci sant mbooleem bi yu góor yi ak yu jigéen yi waaw mu nekk loo xam ne lu màgg la ci seen xol nang leen ma jotolal ne leen ñum ñëpp maanaam sant naa leen ci dundal bi nga xam ne dundal nañ lu leen war ci waxtu yi ci néegab yàlla bi wal kawnu wal kawnu nekk lillaahi ci yàlla ñu nekk rek ñeel yàlla bi raf di kulli maa siwaahu bàyyi lépp lu dut yàlla fii saayiri xarakaati ci mboolem yëngatu yi wa sakanaati ak dal yi ndax ñoom yàlla rek lañ nekkal bàyyi nañ lépp lu dul yàlla ci seeni yëngatu ak ci seeni dal wal xalawaati ak ci seeni féexi ma ak ci seeni xalwa wal jalawaatu ak ci seeni féexi buñ wéetee ñoom rek yàlla rek lañ nekkal suñ wettalikoo ak mbindee fiit yàlla rek lañ nekkal wa xusnu muamalaati ak rafet gi ñuy jëflanteeg maaka ànd ak yow te taalibe yi nga nekkal ñuy li ñuy jëflanteeg yow jëflante bu rafet la bàyyi na maa ngi kontaan ci loolu wa maa kullu mm, eh, min taxtika ak képp koo xam ne rek mu ngi ànd ak yow nekk ci soron min iyaali cheikhi ci njabooti mm, eh, sëriñ bi ala kulli qadrin ci bépp maanaam kem xaswatuhu maanaam ci cëram wa sabqiyatuhu ak jiitum wa mhm, sinnahu ak atam wa ilmu ak xam-xam ak xam-xamam mu ne it ak képp koo xam ne mu ngi ànd ak yow cheikh mouhamad zeynabu nekk ci soron ci njabooti cheikh euh, abdoulahi ñas euh, ak kenn ku ci nekk ñu wàccee nañ ko dara jaam jox lay cëram ak jiitu gim jiitu jox nañ ko ko atami jox nañ ko cër boobu xam-xamam it jox nañ ko cër boobu yonente bi nazilu wàcc leen anaas nit ñi manaziluhum seeni wàccuwaay anzilu wàcc leen anaas nit ñi manaziluhum seen wàccuwaay ndax ñoom dañoo jëfandikoo xadis yonent bi mi wax ne wàccee leen nit ñëpp kenn ku ci nekk ci wàccuwaayam wa aleykum war na ci yéen bi taxaabu bi ci bëggante mu ngi dénk taalibe yëpp ne leen war na ci yéen ngeen bëggante waxtiraami ak xormaal jamii ashaabi cheikhi mbooleem sahaaba yi maanaam sëriñ bi te mooy Cheikhu Tidiane wala ma Abdoulaye Niass fa innahum nak ñoom wallahi gëj naa ci yàlla manzilatun seeni wàccuwaay qaddama jiitu na fa man waqaa koo xam ne tàbbi na fii xawaatirihim ci seeni xaatir bi xayri maa yarda cheikh loo xam ne cheikh Tidiane gërëmu ko fa rubama yu addi yu addabu bëri na bu mu koy yaree min zalika ci loolu mu ne gis nga taalibe cheikh jaan yooyu wala doomi cheikh Tidiane yi wàcce leen seen wàccuwaay lu baax la da képp koo xam ne seen xaatir sa xaatir dugg na ci ñoom ci loo xam ne yàlla gërëmu ko rek Seexu Tijaan dina la dina la yar wa faru daw leen min jamii muxaalafaat ci lépp luy wuteeg ñoom fi zaahiri wal baatini na ngeen di eh, daw lépp loo xam ne juyoo naag seen ndigal juyoo naag seeni maanaam màggal leen ci zaahir ak ci baatin fa inna muxaalafati na ko wutee awaamirullahi ndigaleeg yàlla yi addalu dalilu moo gën a leer ci tegtal eh, alal ci jaam bi min ci yàlla wal iyaazu billahi yàlla ci yàlla musal mu ne ko wuteeg ndigalu yàlla yi ci jaam bi mooy xalkande gi gën a gi gën a tar ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musal wa aleykum maa leen di dénk bi rujuuci ngeen dellu ila laay ci yàlla fii kulli lahzatin ci mboolem génn ngeen génneeku génneeku bu mu mën a doore na ngeen di dellu ci yàlla ani fa innal humuuma naka tiidi wal xumuuma ak njàqare yi Euh, ak jafe-jafe yi wal ahzaane ak njàqare yi kullaha lépp sababuha sabab bi xaflatu mooy sàggan anilaahi ci yàlla bàyyi ne ko jafe-jafe yëpp ak problème yeeg njàqare yi te li ko sabab yëpp mooy sàggan ci yàlla wa lizalika ci loolu xultu laa waxee ani naka man raaytu gis naa acharra kulluhu ay yëpp duniya adduna euh, di euh, waaw wa duniya diinan ci diina wa duniya ak ci adduna wa uxra ak ci àllaaxira eh, fi shirki billahi mu ngi ci bokkaale yàlla bàyyi na man gis naa ne xay lépp diina xayu adduna xayu àllaaxira lépp mu ngi ci bokkaale yàlla wal xayru kulluhu yiw yëpp fi adami shirki mu ngi ci ñàkk a bokkaale yàlla wa eh, wa tahaadu wijhatun te da jubal seeni eh, kanam yëpp mu indil ko aaya dara ba misaal na laahu yàlla ba sadd na dara ba def na allahu yàlla masalan ay misaal rajulan góor fii ci moom mu ta e, shuraka u ñu ay bokkaale mutasharik e, mutashakisuuna ñuy bokkaale wa rajulan ak góor goo xam ne salaman dafa mucc li rajulin ñi xel góor hal yastawiyaani ndax dinañ yem masalan ci misaal bàyyi ne ko yàlla def na ay léebam misaal yoo xam ne benn waay bu mënoon a bokkaale lool nekk ci ay bokkaaleem ak koo xam ne dafa mucc ci bokkaale ndax ñaar ñooñu dinañ yem misaal su boobaa la ci top rek mooy maanaam déedéet ñu yem foofu wala ñu continuer waala moo xam leen anna faydata cheyqi ka sahaabi na ngeen xam ne saaba maanaam faydub seexu tijaan bi dafa mel ni niir wal matluubu li ñuy sàkku min ha ci gannaaw niir bi wujudal asmaari am ay meññet laa mu jarat waxuñ maanaam muñ ci mu sotteeku rek wuquul amtaari ak su taw bi wàccee na ngeen ne lii di faydub seexu tijaan bi dafa mel ni niir niir nag su su tawee liñ ciy jublu mooy meññet daal di am jubluwuñ ci rek ndox mi di wàcc noonu kese waaye dafa su wàccee rek da gis ne gàncax gi day daal di màgg garab yi daal di mejj wanzuru xool leen nag kayfiyatu naka tatlabu samrati ni ñuy saako meññet fi xaalil basaatini ci maanaam mbiru tool yi alxisiyat yi nga xam ne toolu zaahir la in kaana dem nekk na waquul amtaari su taw bi wàccee Euh, yuux nii dina doylu al insaanu nit ki fii bustaanihi ci toolam euh, ani izalati muy dindi alxashishi ñax yi baa leen saa yu tawab za toolab zahir bi su taw bi wàccee ba nga xam ne taw na suuf si tooy xepp baykat bi li muy yittiwoo rek mooy mu daal di dem ci toolam daal di dindi li nga xam ne mooy ñax mi bay bay bay tool set fa haka fa kazalika nako albasatin ma nuwiyat yi tooli baatin yi it noonu la mel fa tasawufu tasawuf laa taquumu du taxaw mukk euh, bi niyati yi ci yéene illaa bi waaw maanaam tax tawhid du taxaw mukk nag lu dul ci maanaam tasawuf du taxaw lu dul bi tawhid ci tawhid wétal yàlla wal ibaadatu ak jaamu yàlla wa zuhdu ak dëddu lépp lu dut yàlla wal waru ak sàmm lépp lu dut yàlla wa zuhdu dëddu wal waru ak sàmm laa yuuji daane duñ ko amee illaa bi mu laazamati sabri lu taqu muñ bàyyi ne dëddu adduna ak sàmm sa bopp ba doo def loo xam ne yàlla moom la xaraamal ñaar yooyu kenn mënul koy am lu dul rek nga sabru mooy muñ fa sabran muñ alal imtisaali ci jëfe al awaamiru ndigle yi wa sabran muñ alal ijtinaabi bàyyi annawaahi tere yi wa sabran muñ alal makruhaati ci yuñ sibi bi maa jarat ci li nga xam ne daw na bii ci ma maqaadiru dogali di nga muñ ba li digale nga daal di koy def muñ ba li yàlla tere nga daal koy bàyyi muñ ba lépp luñ sib sax nga xam ne eh, dogalab yàlla mu ngi ci nga daal di koy bàyyi fa bi haada ci loolu tuuti la ñuy joxe alxaqa yàlla xaquhu xaqam wa tastaslimu ñu daal di jébbalu li xukmihi ñeel xàtteem wa yarda ñu gërëm anilaa ci yàlla fi afaalihi ci ay jëfam taklifiyatu yi nga xam ne yàlla moo ñu ko togg pour ñu jëfee ko wa xayruha ak yeneen yim ñu toggul sax am na ci yoo xam ne farata la kooku xaq la jaam ci jaam bi mu daal di koy delloo yàlla nga daal di jëfee yëpp ak yi nga xam sax ay naafila la yàlla tegul ko nga daal koy def wa aleykum maa ngi leen di dénk bi xusni zanni rafet njortu billaahi ci yàlla wa bi ibaadihi ak ci jaama yi maa ngi leen di dénk rafet njortu ci yàlla ak ci jaamu yàlla yi wa qaala taala alquran nee na yaa ayyuha alladina amanu ay yéen ñi gëm alquran itanibu moytandiku leen kasiran lu bëri mina zanni ci njort yi inna baada zanni nakan lenn ci njort yi ismun la wala tajassasu bu leen maanaam ñu ñuriwante wala yaxdab bum jaw baadukum kenn ci yéen baada ci ña ci des bu kenn ti def taja tajassus mooy di ngay xool mbiru nit ki di ko lëntu di ko maanaam euh, di ci gëstu ngir bëgg cee am lu ñaaw waxi ko ëllëg loolu mooy tajassus jëw nag mooy wax rek ci gannaaw nit ñi alquran tere na ko waaleykum maa ngi leen di dénk bi mu jaala sate xayri ci jataayu yiw yi jataay yi nga xam ne lu baax rek lañ fay def na ngeen fa di toog fa innal majlisata xayri jataayu yiw yu kafiru dina faar dina effacé alfa alfa san majlisin junneey junneey jataay min majalisi suu'i ci jataay yu bon yi boo xam ne da nga faa toog muy jataay yiw jataay yiw ay xaaj la jataay bu ñuy tuddee yàlla jotaay yiw la jotaayu zikkar ak jotaayu borom xam-xam yi kook jotaay yiw la nga toog fi nag benn toog ci jotaay yooyu dina la faral ay junney junney jotaay yu bon yoo xam ne defa ko wa zalika loolu ka majalisil ulamaa yi billaahi comme togoog borom xam-xam yi ci yàlla wa majalisi zikri ak jotaayu zikkar yi wal wasifati ak jotaayu baax yooyu wal wasifatu wasifa nag min baabi ahra mu ngi bonk ci buntab gorel li anha ndax moom laazimatun lu ñuy taqoo la laysa tatawuan nekk lu ñu coobareew la wasifa ci mbooloo kooku luy nit ki daf ka war a taqoog nekkul rek loo xam ne ci coobare bakkam la koy defee su ko neexee def su ko neexee bàyyi wa chartuha sarta wasifa nag aljamaatu mooy ci mbooloo fa man faalaha ku wasifa wax dëhoo moom dongu ka an lam yafaalha mu ngi mel ni defu ko sax toog yow kenn wasifa moo nga ñàkkoon a wasifa sax bàyyi nee na ñoom ñoo yem wa aleykum maa ngi leen di dénk bi ilail himmati ngeen kawel seen yitte yi fi laay ci yàlla na ngeen yëkkati yitte yi kawel yitte yi ci yàlla wa tatlubu ak sàkku aziyadatu dooleeku fii kulli waxtu ci bépp waxtu da di sàkku ndolol yi ci waxtu wu nekk wa saatan ak ci saa nekk zahiran ci lu feeñ wa baatan ak ci lu nëbbu qaala allaahu li xabibihi yàlla wax na soppem bi allazi soppe bi nga xam ne yatawallaa mu méngoo moom yàlla tarbiyatuhu tarbiyaam wa taalimi ak jàngalam bi nafsihi ci boppam taala mu kawe mi fi awali ma nazala ci li nga xam ne moo njëkk a wàcc alayhi ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi aalami lxissi ci aalam bii ñu yëg iqra jàngal yàlla wax na soppem bi te mooy yonent yàlla muhammad te yàlla moo ko jàngal yàlla moo ko yar lim njëkk waccé ci ci al hissi ci mom moy jàngal moy soti aqal alaqi bam jeex wa asra mu rañaane ci yonent bi baxda zalika gannaaw bi ko waxé jàngal wa arahum won ko mom yàlla ayatihi ay aayam wa tajalla mu dal feñ lu ñeel yonent yàlla muhammad bi kamaali zaata ci jëm ci mat ak ja wa aataahu mu ilmal awwalina xam-xama way yëpp wal axirina ak xam-xamam way mujj yëpp wa zaada mu dolli lahoo ñeel ko ala zalika ci xam-xam boobu mu joxoon ko wa qaala lahoo mu wax ko bax na zalika gannaaw loolu waqul waxal rabbi boroom sama zidni dolli ma ilman xam-xam yàlla moo rañaane yonent yàlla muhammad wan ka mboolem kaawteefam yëpp lool doy na xam-xam yemu ci mu wan ka jëmmam ji moom yonent bi gis jëmmi yàlla ji xanaa loolu doy na yamu ci waaye yàlla jox ko xam-xamu way njëkk ak way mujj yëpp yàlla jox ko gannaaw bi mu ko joxee loolu yàlla dolliwaat na ko xam-xam waa terewul mu ne ko waxal yow yàlla dolli ma xam-xam ci sootu taaha aaya 114 fa bi haada ci loolu nag taala mu ngay xamee ne anal abda naka jaam laa matmaaw déet muy xemem lu ñeel ko fii ixaatati ci mu peeg mooy mu dajal maa inda sayidihi la nekk ca sangamba wa mawlaahu ak boromam wala ahadun amul kenn yastaxni di doylu billahi ci yàlla amul kenn koo xam ne dajal na mbirëb yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi amul kenn koo xam ne war nay dem ci yàlla ba ne léegi doyal naa ci wala yàlla mën a xam ne annama lépp lu nekk ca moom jaam bi baaqin aji des la danaa aji maanaam gaaw ji jeex la sax ba li fi nekk maatat lu bu li ngay yëpp yow taalibe bi amaamaka mu ngi sa kanam lépp looy sàkku rek boo ci góorgóorlu duñ ko jot ndax mu ngi ci sa kanam wa maa haada ànd ak loolu fa inni naka man ankum ci yéen raadin aji gërëm naa leen ak lu mën a dem nag yéen gërëm naa leen fii kaseerin ci lu bëri mu ne la awqaati ci waxtu yi fii amri zaawiyati ci ni ngeen taxawoo mbirab zaawiya boobu noonu wa amru axi ak birab sama mbokk wa axiikum ak seen mbokku wa fi amri jamii jiraani ak ni ngeen di taxawoo ci mbooleem dëkkandoor ci dëkk bi nga xam ne yéen a ngi fa walaw laa ilmi su taxutoon ak xam-xam bi ma xam bi annakum naka yéen taalamuuna xam ngeen wasiyati sama ndénkaane lama arsaltuha duma yónnee ilaykum ci yéen su ma xamatoon ne am ngeen fu ngeen teg sama kaddu ak lépp lu ma dénkaane ngeen jëfee ko konoon du ma leen bind leetar bi sax di leen sant di leen digal lool su ma inni topp naka man asalullahu taala maa ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala an yaqusa mu jàpp bi aydikum ci seen loxo ila kamaali maarifatihi jëmale leen ba ci xam yàlla gu mat sëkk yatawalla naa mu méngooñu yatawallaakum yàlla méngoo leen foofu moom yàlla yatawalla muy méngoo asaalihina ñu baax ñi wasalaam kataba bi bind na ko ibrahima bun alhaaji abdullah atijaani bi kuusi ci eh, eh, maidul waaw assalaamu aleykum wa ala kulli man dammanahu majlisatukum tayiba uh, mu ne ko yàlla maa ngi leen di nuyu di nuyu képp koo xam ne mu ngi teew ci seen jataay yu barkeel yooyu lii bàyyi mu ngi ko bindoon fekk mu ngi koosi ci mille trois cent cinquante boo xoolee ci milaadiya mooy tombeeg mille neuf cent maanaam vingt neuf ci bi nga xamee ne rek daa at mi faydu feeñ kon da gis ne lettre bi ay jàngat yu bëri bari bari am na ci ci tagg yi nga xam ne Baay tagg na ko pa Muhammad Zeynabu te xam ne borom sawq la borom asraar la waaye borom hitte ju kawe la koo xam ne yàlla jox na ko njubam depuis bi muy nekk ci xale bay di gis ci leetar bi Baay di wax ne gërëm na taalibe yu góor yi ak yi jigéen yi ci ni ñuy taxawoo jumaa ji di fa jullee waxtu yi juróom ak di fa def seen wasifa bàyyi gërëm na leen it ci bàyyi giñ bàyyi lépp lu dut yàlla jàpp yàlla yàllay kese ci seen i yëngatu ak ci seen i dal bàyyi taggaat na leen it ci euh, jëflante bu rafet bu ñuy jëflanteeg Muhammad Zeynabu ak képp koo xam ne mu ngi nekk ci njabootu Muhammad Zeynabu ak képp koo xam ne maanaam mu ngi ci sa suufam mu ne ndax ñoom taaliba yooyu kenn ku ci nekk dañ kaa wàccee ci wàccuwaayam borom xam-xam ñu jox ko xam ne dafa jiitu rek ci faydu bi jox nañ ko cëram koo xam ne mag la la leen ëppalee rek jox nañ ko cëram ndax li te wax ne wàcce leen nit ñi kenn ku ci nekk ci wàccu waayam mun leen nag euh, loolu maanaam lu rëy la te gërëm naa ko képp ku fexe ba Seexu Tijaan maanaam maanaam sëriñ bi gërëm la ak njabootam su boobaa loolu maanaam lu kawe la ci yàlla waaye nag fexe ba mere la ba seen xaatir nga duggal ci lu bon bàyyi ne luy maanaam xalkaane foofu la foofu la mu mun leen a bu leen di juyoo ak ñi sëriñ bi ak ñi nga xam ne mooy njabootu sëriñ bi bàyyi ne bépp maanaam bépp jafe-jafe ak lépp loo xam ne luy ay euh, tiit la ak ay njàqare li ko sabab mooy sàggante ci yàlla ku am jafe-jafe yooyu rek yaa am ci sàggan ci yàlla bàyyi nag ne moom lim gis mooy jafe-jafe yi ak euh, euh, diina ak alaaxira yëpp mu ngi ci bokkaale yàlla yiw yëpp nag lu baax lépp mu ngi ci ñàkk bokkaale yàlla comme ñi nga xamee ne alquran maanaam noonu la ko waxee lettre bi dañ ci jàng ba léegi bàyyi di wax ne faydu dafa mel ni taw taw bi nag su wàccee liñ ci soxla mooy garab yi daal di meññi mu ne tawab zahir bi su tawee baykat yëpp dañuy summeeku dem ci tool ya daal di bay fexe tàqale ñax mi ak li nga xam ne mooy dugub ji nee na faydu moom it noonu la mel bu fekkente ne tarbiya nga mboota maarifa wàcc sa xol bi taw bee ngi noonu waaye il faut nga delluwaa na di tàqale jikko yu rafet yi jikk yu baax yi di leen tàqale ba nga fexe ba seytaan di am ci yow cër bàyyi na nag na ngeen xam ne tasuuf nekkul rek mm, maanaam yéene kese waaye da ngay am tawhid mooy nga wéetal yàlla ak jaamu ko loolu mooy tasawuf te zuhdu mooy dëddu yàlla ak sàmm kenn mënu ko am lu ci muñ kon ci muñ ci la amee loolu lépp bàyyi na nga muñ ba def yu yiñ muñ bàyyi tere nga muñ muñ ba bàyyi sa yi nga xam ne dañ kaa sib léegi bokk na fi muy mujjantelee ci leetar bi mooy bàyyi ne ko mboolem yiw maanaam jataay yu baax yi di ci teew moo xam mooy jataay boroom xam moo xam mooy jataay bu ñuy tuddee yàlla di fa teew def lay éffanceel junne junne jataay yoo xam ne teewoon nga ko ci jataay yu bon ci misaal koo xam ne daan dem soirée nga jógee koo fa dem ca daayira ba dem bi nga dem ca daayira ba da lay dem soirée ba loolu maanaam misaal lañ joxe foofu jataay boo xam ne dañ fa daan jëwee jataay bi ñuy rambaajee jataay bi ñuy defee lu bon ba mu mat junne junne jataay nga teew ci benn jataay boo xam ne jataay bu ñu tuddee yàlla wala benn jataay ak boroom xam-xam ci mu joxe dak darsu nga déglu darsu ba kooku junnee junnee jataay yu bon yooyu yëpp bàyyi nekk dafay daf la koy effacer mu ne ko wasifa nag maanaam lu ñuy taqoo la waaye nekk saa yu neexee def ko saa yu la naqaree bàyyi ko mu ne def ko yow kenn nga wasifa yow kenn ci loo xam ne amoo benn ngant ñàkkoon kay def ñooyam kon lu fa bàyyi di jàngale mooy wasifa daal ca mbooloo lañ koy defee bàyyi ne ko na ngeen kawel seen yitte yi ci sàkku ndollal ci waxtu wu jot ci lu nëbb ak ci lu feeñ fa mujjee nag mooy li yonent bi li ko yàlla wax yonent yàlla Muhammad yàlla lim njëkk a wàccee ci moom mooy da nga jàng iqara jàngal kon sàkku xam-xam la jiital ci moom gannaaw ga yàlla rañaanee na ko wan ko lépp luy aayay lépp luy kaawteef rek yàlla wan na ko yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wan na ko sax jëmmam ju màgg ji ci mat goo ci wan goo xam mat wan gu mat sëkk la gannaaw ga yàlla jox na ko xam-xami way njëkk ak way mujj yëpp ganaaw bi mu ko joxee loolu yàlla dolliwaat na ko xam-xam te yàlla ndoole la moo ëpp mayam terewut yàlla ne ko waxal yow yonent bi ne yàlla dolli ma xam-xam bàyyi ne liñ ciy déggee mooy jaam du mën a xam xam yàlla ba ne léegi doyal naa du mën a yegg ci yonent bi yegg-yegg ba ne léegi kat doyal naa ci yonent bi euh, yal na yàlla defal ñu dégg ak topp wasalaamaaleykum